asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi suivre seen site internet bii di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafilay weeru koor bi tey nag ñu di ko yéen ci guddik fukkeel lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon inna ansalnaahu fukki yoon ak ñaar ñu bamtuwaat ko ñeenti rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon ayatul kursi yu benn yoon inna ansalnaahu fukki yoon ak ñaar ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la ñuy jàpp koor gi di 5 heures 22 maanaam juróomi waxtu ci fajar bu toftalee ñaar fukki simili ak ñaar bu dee waxtu dog yi 19 heures 25 maanaam juróom-ñaari waxtu si ngoon bu toftalee ñaar fukki simili ak juróom ñu ngi leen jox dig daje ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila